asalaamaaleykum yeen ñi suivre ci seen chaîne sama xalat ñu ngi leen di nuyu di leen eh, ziar bu baax baax leen dalal jàmm ci chaîne bi eh, comme ni ngeen ko xamee nag professeur Ousmane Ndiaye chaque semaine dina ñëw am yu am solo yu ñu defal fii si ay jàngat ci wàllum wér gi yaram ci wàllum ay plante ci wàllum ay légume ay fruits et cetera et cetera muy waxtaan yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu temps bi muy bàyyi ñëw toog jël eh, maanaam ay waxtu yu bari ci temps ñëw li ñu expliquer loo xamante ni bu ko neexoon toog këram toogaale ko jàpp ñàmbaram mais mu koy préféré partager ko ak ñi nga xam ne ñooy askan bi nga xam ne yëpp bëgg nañ lu baax te bëgg a jëriñu ah, parce que chaîne bi moom comme ni ñu waxee rek maanaam borom ñun borom xel yi la ñuy waxal. <laughs> waaw ah, borom xel comme lay waxal. waaw <laughs> am xel. ba pare di utiliser seen xel. ba pare di sonnal seen xel. dañuy ci lépp dañ ciy xalaat pour di ci di di ci jëriñu voilà ñooñu la ñuy waxal te yaakaar ñoo abonné ci chaîne bi voilà. moo tax ñu ngi leen di remercier ci suivre yi di suivre vidéo yi tey nag professeur dañu bëgg a ñëw ci garab gi nga xam ni mooy euh, dugóor ak dama karoon digo mom mom mom mom plante bob mom mom lan lañuy lan lañuy ñuy jariñ waaw ban njariñ dal lañuy xaar ci mom nga ni tay buma fi garabu ma yoron sama ëllëg exam nek top di bay suma rombe, ko rombe duma ko bayale mhm. ndax dina xamni li kat ah sangam sàngam wala assalamu mhm. alaykum wa rahmatullah seigne Pape ñi ngi lay ziar di len nuyu di la fay mhm. di nuyu ñi ñi sa xam ñu ngi suivre ci boole waale mbokk lu doon jallale bi Mm-hmm. Abdoul Ahad Diop Baye Abdoul Ahad Touba Touba koy ziar bu baax a baax di ziar ñëpp nag ñi nga xam ne ñu ngi suivre bëgguñu lim tur rek waaye ñu ngi ziar ñëpp mm-hmm. di nuyu ñëpp nag di comme ni ñu koy waxee mm-hmm. euh, bu rafet rek moo ñu bu ci def rek ngeen jéggal ñu ko tamit xam nit matul comme ni woon su ko defee boobu nga wax nag pas plante de la semaine muy digóor ñun ñu koy wax digóor côté Kajoor côté fif ñun hmm. digóor la ñuy wax d'accord hmm. ah am ci net bi nak bima ma ñuy wax benen tour bo xamanteni tane lañ bokul nañ mais fekk yépp xamna naa benn la rek wa benn wa garab bu nek dem ay variété yu xaw a wuute am na ñu naan dugóor man bobu la xam amna ñu naan dugóor voilà am na ñu naan sa dépend mais dal benn la rek terminologie mën na wuté soo bërëb bi nit ki dëkkee lañ ko fay wala dañ ko xamé rek voilà mais teer bu nekk garab. gi waaw même garab gi la. garab bu ndaw la nii. bu mm-hmm. tuuti daal. ay 1 la. arbuste la euh, moom bokkut ak garab yu mag yi. dafa dafa ndaw nii. ba demee côté Kajoor bi nii defe naa bari na fa. Mm-hmm. mooy à part Tivaouane jëm Pire moom. Mm-hmm. Pire sax dañ fa naan jaay digóor defe naa ni ci garage bi. noonu waaw waaw waaw sax jàll te ay doom. waaw kay doom yooyu. Ah, man man ñam naa ko. waaw kay dafa neex la <laughs> neex la. day verte après mu xaw a zone après mu orange. waaw kay mi ngoog ñoree day orange dafa neex. mais garab gu bëri njëriñ la mhm. bëri lu muy faj mhm. que ce soit muy reen yi mhm. muy xob yi muy kii bi nu mu tuddati xas bi wala parce que foofu xasu kii dañ koy tuddee maanaam xam nga tey boo nee xas bi sax ñu bëri dañu jàpp ni ak garab gu mag la garab gu mag la te garab gu neew la xas quoi. waaw boo nee xas bi kii laa ci jublu mooy tiges yi. car yu ndaw yi. en boo ko xoolee xam nga digóor mën nga mën naa am xas boo xamante ne sax mën nañ ko fekk dafa buub mën nga ko takk waaw boo xëccee day topp di def mhm. loolu la ñuy wax xas bi mhm. mais en loolu duñ ko moom kese mën nañ ko booleeg car yeeg xob yeeg mhm. ce qu'on appelle les tiges feuillées waaw xam nga ci garab dafa am loo xamante ni dafa am garab yoo xam ne soo koy utiliser mën nga boolee xob bi ak car bi ak lépp daal waaw am des reen bi peut-être léegi li ko féete kaw yëpp mën nga ko boole mën na ànd mën na ànd nga ci benn togg nga togg ko def ko garab. Hmm. loolu la ñuy wax ne tige tige feuillée. kon boo ko du soxla nga yottu ba benn xob par benn xob mën nga dagg ab car ah, boo déggee benn cat. Mhm. bant mi ngi ci xob mi ngi ci. mi ngi ci mais mën nga ko utiliser. mën nga ko utiliser comme sexaw rek baxalaal bant yi daal. waaw bu neexee tamit. Mhm. am na foo xam ne tamit xob yi rek ngay jël. waaw loolu ça dépend ci kii defar garab moom moo koy xam. waaw ah. xam xob yi rek ngay jël. finalité bi mu ci jub du ci jub am na foo xam ne tey bu fekkente ne nit ki dafa amee li ñuy waxee comme azoosperme yooyu mhm. wala oligosperme nga xam ne wàllu mën yu nga bëgg a defar mhm. xam ne mën yu nit ki nga bëgg a defar waaw boobu xob yu tuuti yi nga jël yu bees yi loo mhm. jël xob yu màgget yi d'accord comprendre donc xob yi soog a jéeb yu jeebu jeebu yëpp yooyu ngay fexee am pour defar ci loolu donc boo defee digóor dafa bëri njëriñ tey ci wàllu biir bi ñuy wax la dysenterie waaw mooy biiru tañ biiru tañ biiru tañ mi biir buy daw daw metti waaw loolu baax na ci mhm. te euh, Pape maa ngi xalaat sax ni gis nga digóor bu ñu defoon recherche dëgg mhm. war nañ ci mën a trouver defe ah, amoon na fi de amoon na fi waaw parce que tey digóor soo amoon xob yi mhm. ak reen bi te boole koog reenu kii nu mu tuddati ngol lañ ngol lañ nga boole ko ngool lañ moom day faj estomac. day faj estomac estomac. ngool lañ ngool lañ ak euh, digóor. ak digóor ak digóor. Hmm. amee asma sax composition boobu. Hmm. soo ci doolee jinjeer. Hmm. dina baax si ñoom. nan lañ koy préparer. maanaam da ngay wutu xobu digóor. wut reenu digóor. léegi nag boo man man boog ni ma ko doon defaree boo jëlee quantité boobu ñoom ñaar nga boole leen. waaw wut ngoollañ. Mhm. léegi nag boo jëlee fee ñaar. Mhm. wut fii benn. Mhm. maanaam foofu doosu lay jàngale. lanu ngoollañ. reenu ngoollañ. reenu nga def ko sunguf. jël reenu digóor. def ko sunguf. waaw jël xobu digóor. def ko sunguf. minyak ñett sunguf muy sunguf mais xam nga reenu dugor bi ak xobu dugor bi mhm. bu nek sunguf ñom da nga leen di bolé mhm. so leen bolé ba paré xam nga ya nga am ñi légui ñaari garab ñaari sunguf mhm. légui reenu dugor bi xobu dugor bi su ci juroon ñaari kaas maanaam tey ngolañ bi benn kaas ngay jël manam lé mooy ñaari kuddu fi benn kuddu wa kay nga mélanger leen bu mu nek benn garab d'accord ñu koy jëlé légui nag bu ko defee boko jëlé da ngay jël lu toll ak genn litre ndox Mhm. jël kudd benn kudd. Mhm. def ci. ci composition finale bi def ci léegi di ko par kaasu ataaya. Mhm. suba bi di ngoon. d'accord loolu baax na ci estomac. su fekkente ne li ma la leen wax Ebola wala yu demee noonu parce que ci wàllu boo gisee ma wax loolu. mooy wàllu biir buy daw. biir buy daw comme ni nga wax sànq ci biiru tañ. biiru tañ te dama ñëw ci biir buy daw. ak euh, kii wàccu. d'accord nausée quoi. waaw léegi nit ki bu amee biir bi daw. Mhm. mu ànd ak wàcc ñaar yooyu. xam nga ñaar yooyu dafa gaaw ci faat doomu aadama ah, yamul wet ñu bëri loolu lañ xamul ñaar yooyu dafa gaaw ci mhm, mhm. parce que. lekk gi day génn si ñaari sens lekk gi day génn ndox mi di génn. voilà baaxul. waaw doo mën a lekk. ki feebar doo mën a lekk waaw da lay yooyu nag yooyu ñu naan day rey. loolu la parce que loolu la rek que ni feebar bee dee mais lii génn ci doomu aadama yi moo bari bari ba nga xamante ba mu ëpp day vide waaw c'est vrai li naan saako bu deful du taxaw xam nga ne bu biir bi dee daw mhm. gémmiñ gi di sotti te benn du taxaw ah, waaw loolu yàgg ta yàgg du yàgg nit ki day faible mhm. te bu faiblee day dem ba dootu ko dara dootu ko mën dëgg la bu defee nag lépp lu nekkoon ci ndox yaram bi day deñ mhm. parce que biir bi daw da ko gis day yaram bi dootu am kàttan bu xeex ak feebar bi waaw ba pare ndox mi nekkoon ci yaram bi dañ na nekk gi dañ na loolu loolu dong ma indi c'est léegi nag su ko defee loolu day boo amee digóor mhm. xobi digóor waaw nga am euh, kële yiir yiir garabu yiir mhm. mooy ñuy defaree gën yeeg kii waaw nga am xas xasu yiir mhm. xas bi ngay wut waaw xas bi ngay wut nga wut xasu yiir nga boole ñaari composition yooyu day faj loolu nan nga koy jële même chose ko def sunguf wala da nga ko def sunguf rek man sama garab yëpp sunguf moo gën mooy gën a. teg fa sunguf après xool ca ndox waaw bàyyi ba mu teey. ngay naan ndox waaw xam nga problème bi Pape. Mm-hmm. su la neexee yow mi faj boo ko boo ko amee noonu sax bu la neexee baxal ko. Mm-hmm. bañ ko def sunguf. exemple ah, yow bu fekkee bu fekkee. Mm-hmm. da nga koo jënd loolu ci marché bi bu la neexee bañ ko def sunguf. ah d'accord maanaam tey mën nga ah, jënd sunguf du obligatoire. du obligatoire. ok c'est que man dama taamu wax sunguf parce que xam nga wala laa ci jublu. ndax damaa xër ba mu ëpp nag. tey samay garab yëpp man sunguf laa koy def. lu tax. ok li jaral leeral la. man sama clinique amul butéel. waaw am na jour man naa la gars yi buñ damay seetaan set eh, Africa set ah. benn mhm. moom naa war naa fay lu bari chaque jour mais mhm. ginnaawam biteel yu verte yu jaune yu biteel nga mu rafet nag voilà man man affaire damay xaw a jaaxal ma ne lii est-ce que bu fi yàggee mhm. nga jox ko nit mu naan ko wóor na parce que bu fa amee ay six mois day boo ko ubbee sax mën a def tëf loolu benn mooy ah. garab googu mën na la indi lor parce que day yàqu trois jours rek quatre jours bu jarul rek. waroo koo xoojal sa bopp toog di teg di jaay waaw kay. léegi bu ko defee non man sax mën naa ko man parce que jàng naa mën naa defa garab mu dem deux ans te nga xam ni ñu koy conservé waaw ndox lay nekk. loolu moom man man a yenu maanaa a yenu mm. tey boo amee parce que jamono moo ko laaj. Mm-hmm. mooy mooy dérapage bi xam nga léegi ñu ngi ci mais du dérapage. ah yii moom koy expliqué. waaw léegi tey Pape imaginer nga am client bu nekk euh, Espagne. waaw nga wut ñetti biteel bu ko ko yóbbante waaw yoo xam dañ ay luñ togg ba pare na ay ndox la déjà GP yi rek def naa duñ ko yóbbu. non i yooyu dafa compliqué. dafa compliqué mu nekk beneen problème benn waaye mu bëgg a dugal ñetti biteelu diwtiir. waaw mais dana ko nga def ko xom am na système bu compliqué ko wax. da nga koy def ko ci mbuus bu tal boo xam ne war benn toq lu ci génn am na neneen lu mu ko wax nga def ko emballage ko xom ji ban soo ko def ci carton. soo ko indi ñu vérifier ñu soog ko xool dinañ ko mën a yóbbu mu dee loolu la ko wax te am na yoo xam sax duñ ko yóbbu bu leen dox rek ni mu ko waxee bu ñëwee loolu du ko def am na yoo xam sax bu yóbbu duñ ko te léegi bu demee même bu demee même buñ ko yóbbu ba mu dem mhm. defar naa garab ñetti bitéeli euh, un litre cinquante yóbbante ko ku nekk Espagne mhm. mu dem ci bu ciy naan quelques jours mu jeex waaw waaw vraiment mu soxla bu jeexee mu soxla ñu defaral ko yeneen bitéel yóbbuwaat ko yóbbuwaat ko loolu est-ce que du nekk problème man du problème léegi nag yow soo jëlee comme man garab yoo def enveloppe yooyu mën a fi ma noonu waaw nga def ko sunguf xam nga yaa xam nga sa composition waaw garab yi di feeñ à gauche waaw xam nga day ci enveloppe la nekk benn enveloppe mhm. mu yóbbu ko non seulement neex naa yóbbu mhm. bi ci des mooy moom mën na ko utiliser lu dose la pour bu xaw a gudd weer na wala bu defee utiliser mu jeex sunguf baa nga parce que bu jëlee benn kuddu comprendre defar 1 litre 1 litre boobu mën dem trois jours wala quatre mu jeex mu defaraat beneen defaraat beneen defaraat beneen donc mën dem temps bu yàgg temps bu yàgg parce que sunguf nga ko jox waaw kay joxoo ko ndox joxuma ko ndox léegi bu defee nag sunguf bi dina mhm. yàgg moom sax li mu jënd garab bi liter, tax parfois ñu naa leen garab dafa cher te liter. nga ci am liter. bouteille dix litres waaw waaw waaw comme mën nga am dix litres imagine tey dix litres boo ko bëggoon yóbbu yóbbante kenn du yomb de du yomb ayob yu nga jox ko benn sachet boo xam ni sunguf bi ci nekk mën na ko utiliser un mois. kay ñëw tegal ko benn bitéel bitéel boo xam ne da nga koy utiliser trois jours parce que bitéelu un litre cinquante yi boo naanee deux wala trois jours maximum respecté ko ngoon ñetti fan du ko paase bu ba sakkanee ba sakkan effectivement nga war utaat demaat utaat beneen bitéel demaat utaat beneen bitéel loolu nga def loo xam nit ki sunguf bi lay jël nga wax ko ni mu koy. préparé mu préparé mu defar comme comme pharmacie ni ñuy dafa comprimé rek. waaw mooy gën a yomb. waaw loolu moo tax loolu moo tax loolu man loolu laay fonctionné. Hmm. léegi nag bu ko defee du ma fa nekk di togg ay garab du kii comprendre nga. Hmm. loolu laay def loolu laay def bu ko defee mooy gën a sakkan ci client bi sax parfois moo koy gën a arrangé. Hmm, dëgg la. ba parfois même tamit boo toogee tey une semaine bu la neexee nga toog une semaine ba ñu utiliser garab bi nga tëj sa ferme bàyyi teg. voilà waaw soo ko aatee commencé waat. yaa xam li ngay def moo gën a pratique. moo gën a pratique <laughs> waaw loolu lool loolu loolu la. moo tax man samay garab yu ci bëri. presque yëpp sax. sunguf laa koy def. waaw daanaa defar ay sirop nag mais moom du daw daawu dem Europe. non moom li kay man la képp kuy déglu nii te xoo utiliser xelam rek xam a yanu maanaam. waaw kay léegi nag li ñuy moo am na ñoo xam ne sax boo ubbee rek tëf lay def exploser. naa garab yi am na. Mhm. waaye xëy na duñ ko jox nit ñi. waaw moom loolu tam mhm. fekkee ku nekk Sénégal la moom mën na ñëw nga defaral ko tey exemple jox ko mu dem bu jeexee mën na ñëwaat parce soriwul loolu moom mën na mën mm-hmm. na nekk quoi. d'accord loolu moom mën na nekk. Mm-hmm. mais boo gisee may wax sunguf kon foo ko boobu loolu laa jubloo ah, leer na mais tey bu la neexee Pape nga dem nga jël sa digóor mm-hmm. jël car yi xob yi dem jël sa xasu yiir ñëw baxal waaw bu jeexee ba léegi nga defaat. nga dem defaat naan segg loolu. du du du du c'est pas compliqué. Ah, mooy gën yomb sunguf bi sax. dëgg la ci yow mi ma koy xelal ni mooy gën yomb dem def sunguf def ko def bu ko transformé waat sunguf ak yooyu. waaw lii mooy gën jàppale ci yow quoi. dëgg bu ko defee noonu bu ko boobu dafa baax ci li nga xamante ni mooy wàllu wàccu. Mhm. ak euh, kii. biiru ñi daal maanaam damay. biir buy daw ak biir buy daw ak nit ki di wàcc ak yooyu. dafay arrêté bu gaaw diggante boobu tamit pas baax na ci ñi nga xam dañoo tële. Hmm, ci impuissance sexuelle. non pas impuissance sexuelle sax mais impuissance euh, tële ci wàllu maanaam. maanaam ko stérilité ku amul doom daal la. d'accord ah, waaw loolu du tële. du tële tële mooy koo xam ni kàttan moo wàññeeku waaw du yi def. waa kay waaw mooy tële. waaw mais yaa nga xam ni. maanaam euh, ma ay fer man yëm moo amul ferñeent yu am solo. yu am solo nga xam mënta am doom. muy góor wala muy jigéen loolu du loolu waaw wala muy jigéen nga xam ne dafa taxaw. ci wàllu doom mhm. moom it euh, bu amee reen bi daf ko sunguf loxo bi mhm. Mhm. baax na ci mais yaa ngi ko doon leeral sa vidéo defoon nañ ci vidéo ah. nga ci lu bari waaw kay ci diggante boobu diggante mu ngi noonu donc baax moom it baax na ci du ngoor baax na ci trop baax na ci ñi nga am ay règle tamit problème bu règle yooyu parce que man parfois dama koy dama am na benn année ma ciy gëstu lu yàgg nii ça fait war na mat ay dix ans dama ne sax kii garabu jigéen ñi la war a nekk du ngoor <laughs> waaw dafa bëri lu muy faj ci wàllu jigéen yi nga xam ne dañuy amee yu demee noonu feebaru jigéen da ci bëri lu mu ciy faj moom ci règle douloureuse ay règle douloureuse ak ay ménopause ak ay ay règle abondante rek mhm. yooyu yëpp da koy da koy da koy saafara d'accord moom amal bi rek am règle yoo dafa am dysfonctionnement dysfonctionnement ak mu amee dysfonctionnement mën na koo mën na koy mën na koy utiliser reen bi lay jël mhm. reen du ma euh, ba mu set mhm. koy kii baxal di ko di d'accord même ñi am ba du nga di ko naan. di ko naan waaw ah, loolu compliqué wu. waaw mhm. te moom kiiwul quoi weexul. Mm, waaw weexul waaw weexul amul mhm. amul kii. ñi nga xam ne dañoo amee ce qu'on appelle du du plante toxique daal. plante toxique waaw du plante toxique <laughs> xam nga dafa baax nag nga xam ko <laughs> wala no non garab garab garab Pape dafa doy waar. boo ko xamul rek mën nga mën nga gaañ nit ki. dëgg la donc bu ko defee du plante toxique amul benn danger. Mhm. dafa am euh, benn kër boo xam ne dama ko joxe mais parfois su ma ko jo wax nit ki sax damay damay xaw a gêné wu. Mhm. parce que dama naan ko mën ko def ndox sax di ko mhm. parce que dafa am benn garab boo xam ne prostate faj. mais bu ma la ko joxee dama naan la bu la neexee di ko naan par mhm. mais bu la neexee. nga def ko ndoxu naan foo la maree naanal. parce que du. waaw ah, nga koy utiliser chaque jour. chaque heure bu la neexee. d'accord parce que amul toxique amul dara dara comme ndox la. du def dara. comprends nga mais parfois am na ñoo xam ne duñ ko mën a déggee wax nii wala non non àndul damay wax noonu rek ah, non àndul ah, damay expliquer rek <laughs> plante non toxique yi am na ci yoo xamante ni parfois boo ko xamee mhm. nga xam ne mën nga ko def sans sans problème d'accord donc digóor bi mhm. bu fekkente ni liñ ñu doon wax sànq mooy mhm. règle yeeg yooyu waaw reen bi baax na ci reen bi waaw léegi am na am na foo ah, xam ne da nga koy baxal waxoon nga ko dañ waaw am na yoo xam ne dañuy am na am na benn feebar bi ñoo xam seen yaram bi day tàng yaram buy tàng la amee hyperthermie hyperthermie waaw yaram buy tàng fu mu toll fu mu toll yaram bi day tàng boobu amee xobi dugóor hmm. di ko baxal di ko naan hmm. moom mën a dem ba wàññi tàngaay tàngaay boobu dina ko régler dina ko régler hmm, waxuñu waxuñu nag fièvre fièvre mooy loo xam ni day dem bi ñëw comme sibbiru waaw tàngaay boobu taxul ngay wax taxul ngay wax mais nga am problème mu yaram buy tàngat waaw wala muy transpire di tàngat la tàngat kay waaw ba ngoog tàngat mooy hyperthermie donc baax na ci garab bu baax na ci mhm. maanaam tey digóor ak sëqat ak yu demee noonu maanaam dafa bëri lu muy lu muy faj pap dafa bëri lu muy faj am na njariñ kay. non trop sax maanaam moom xam naa doon naa la ko wax sax ci <laughs> benn vidéo. naan la Dungoor bu baax ndax jiit c'est la première fois jiit ma ci garab Dungoor la am. ma sax jiit ma. <laughs> waaw <laughs> jiit day fettaat. day fett am benn affaire bu lay dóor. waaw fett la dafa bëgg dafa bëgg Dungoor nag garab gi. waaw man si dem jaan sax kay moo tax ma xam ko. même jaan dafa bëgg Dungoor. benn waaye moo doon uti euh, temps yi xale laa quoi waa ji di uti ay euh, nee ñu dañ ko naan topp benn waaye bu ñu daan topp nii rek mm. xale yi day am kuñ takk nii mu daan dem di uti reenu reenu du wóor ñu ànd moom li ñee taxaw ci su ci suuf affaire bi ñuy gas ñu man maa ngi sukk ci suuf affaire bi ne ma cuuc fii sama am dama sukk benn oom yëkkati benn oom uh-huh. mu ne ma cuuc ma di oom boobu di wokk nii sukk ba ne mu ne ma cuuc fii <laughs> ma ma defe ne meleen tax ni ñuul lii la ma jóg xool gis muy daw di dem ma ne ko boogar affaire bi di daa mel moo ma moo ma maat mu xool ko mu ne ma tey nga dee jiit la <laughs> loo xamul sa luy jiit <laughs> bu ndaw la nag saf waaw ak ay saf nag ñibbi muy xasan guddi gi nelawu ma daa ida illa guddi gi affaire bi raw raw raw nelawu garab du moom xam naa xam naa scorpion scorpion wala donc dafa bëri njëriñ de pap <laughs> mhm. genn wàllu genn wàll gi sax waxtaane wuñ ko ci njariñam ci li mu mën a faj dëgg la ndeysaan yu mën a faj mhm. genn wàll genn wàll ah mais liñ ci waxtaan ko ci jàpp mu doy waaw des na yu bëree bari pap yoo xamante ni ah boo amee lu nekk sa xel loo ci bëgg a doole non bëri bëri na bëri na bëri na pap problème mu poumon yi problème mu kii dënd yi mhm. yëpp daf koy xam nga ko bi wax na am na solo trop ci bàyyi xel côté kii bi nu mu tuddati pap même ci baatin mhm. digóor dafa baax côté baatin bi xam naa ni dañ ci maye tuuti rek parce que ah, am ñu jël xobi <laughs> maanaam dafa am ay saafara yoo xam ne boo koy boo koy sangoo boo la ko xobi dugal day day day ubbi nit ki. Ah, ouverture ouverture. waaw ah, garabu ouverture la garabu la waaw am na ay yooyu bind. Mhm. def ko cangaay. waaw bëri na nag ay façon mhm. tey tey exemple rek. Euh, am na ñoo xamante ni tey dañuy jël euh, kii nu mu tuddati quatre-vingt-dix-neuf xobu dugóor. waaw quatre vingt bu xam nga boo demee ci soratu nu mu tuddati waaqa. 99 aaya aaya la mhm. léegi aaya bu ne na nga fexee ko bind ci benn xob waaw nag mhm. day liggéey bi day metti parce que xob yi da ngay wut xob yu mag waaw xob du yu mag nga bind mhm. di ko sangoo loolu lay ubbi di ko sangoo ouverture la di ko di ko ubbi bari na bari na ay façon daal ñoo ko déggandoo ñi ko mën a def sama sama papa mu soon wax yàgg na loolu mu ne ma xobu fekk garab am na daal lu xamal la nekk ci doon ba mu doon da waxtaan yi xaw ma daal am na daal lu taxoon moo ko mu ne ma garabu dungóor su fekkee danga nekk koo xam ne xam ne dañoo xam ñoo xam dañ naan seen loxo dafa bënn bënn waaw koy dégg dégg waaw ma xaalis bu ñu dem koo xam daal xaalis toog ci day mel ni daal buggul lu yor xaalis lu mu yor da koy dépense mm-hmm. nee na ma loolu bu la arrivé da ngay ut euh, xobu dungóor yi wadd waaw yi wadd ci suuf mm-hmm. mu ne ma nga baxal ko jël ndox ma moom baxasoo ko mm-hmm. loolu boo ko defee loolu da koy dindi loolu sama mos naa dégg sama papa. voilà xobu dungóor yi wadd. waaw mu ne ma du mu ne ma dungóor day conservé ay xobam. même xob yi wadd du leen bàyyi ñu dem da leen di téye ci. ci suuf la ñuy nekk waaw. est-ce que <laughs> mu ne xob yi wadd ngay jël nga baxal ko di raxasoo ndox di raxasoo bu bënn da koy dindi xaalis boo amatee dina toog dina toog waaw gars yi dañ ko dem wuti dem slaag <laughs> loolu daal mos na ma kaa wax ko tamit waaw baax na ci parce que Fatou jamono moo toll foo xam ne xam nga tey li nga wax ni nga partagé ko wàññiwu la dara mi ngi noonu nga ko kenn koo xam ni peut-être entreprise yor na mooy sànq dérapage bi ma la gis nga hmm. dérapage bi ma la wax man moo tax ma ne du dérapage hmm. amu tey li nga wax ni yaa ngi koy xeeb waaw tey nit mën na yor entreprise hmm. exemple quoi di perte ay millions. Mhm. wala ay milliards. effectivement te du xam xaalis ba fu mu jaar. waaw c'est vrai lii nga wax mën na dem def pare yàlla. waaw gis léegi affaire yi di toog. di toog <laughs> moo tax jër ah, waaw macha allah. jër te xeeb te xeeb mi ngi noonu. waaw lu waaye di xeeb rek. nit a ngi ni siiw pour jot ci. dëgg am na koo xam ne loolu def na ko problème ba nga xamante ni. ndeysaan waaw day am day am am ñoom xaalis toog seen loxo parce que ñun ñii yëngu ci ñaan ñu bëri dañ lay sant loolu. waaw lu ma am mu dem. lu ma am mu dem duñ xam fu mu jaar duñ la mën a lii laa ci dépense. waaw loolu ñu xam duñ xam fu mu jaar donc bu defee loolu tamit da ciy baax mais li mu mën a wax mooy liñ ci wax noonu sax digóor des na yeneen ak yeneen ci càngaay yu bëri yoo xamante ni hmm. ci wàllu ouverture daf daf ci ñëw daf ciy dox incha allah may rek yëpp dinañ ci ñëw daal yàlla nañu yàlla daal may fekk ak tal ak tal ak wér yëpp daal hmm. condition yi réunir yëpp nga mën a toog di def ay di def ay bi yàlla nañ defal ko ñi ñuy suivre ñuy suivre Euh, xam naa voilà téye nañ leen gudd nag vingt minutes. la <laughs> macha allah xam naa ci ci des nga xamante ni dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy euh, fruit. de la semaine n'est-ce mmh. bi nga xamante ni moom ngay baax nit ñi vertu yi mu am ci nit ku koy consommer. Mmh. kon ñu ngi leen di remercier di leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw. Euh, soo rek am na loo ci bu bëgg sànni pour teg. waaw baax na baax na Papa di nuyoo nit ñi rek di leen ziyaarawaat bu baax. Mmh. di sant bu baax ak gërëm rek. di wax ni. Euh, yaa ngi naan vingt minutes la waaye loolu du ci dara <laughs> bu nit ñi gisee seen bopp rek baax na waaw xam nga li am solo mooy mm-hmm, mm-hmm. Euh, gàtt geeg gudd gi amu ci solo ci sama xalaat bopp man boog sama xalaat dëgg bu gàtt mm-hmm. ak bu gudd amul solo xam am solo mooy contenu bi liñ ciy wax amul njariñ nit ki ah c'est vrai xam nga tey mënoon nañoo ñëw une heure de temps yoo xam ne caaxaan lañ fi nekkee nga wax te doo tudd jën kenn dara. amul ah, benn njëriñ effectivement amul sens. c'est vrai mën nga jël trente secondes ñetti minutes yoo xam ne. Mhm. mën nga ci wax loo xamante ni njëriñ kese la feese. dëgg la kon nag continue bi rek moo ci moo ci am sens. te moo ma doole la Pape. Mhm. mos def euh, réunion. Mhm. sur la médecine traditionnelle. Euh, ci centre fi ñuy former médecin ENDS. waaw ah. bi ñëwee ministre bi gaa yu toog. ñu ni parole trois minutes. kenn ku nekk trois kenn weesu trois minutes. gars yi di wax man bi ma bindoo bi ma egsee. Mhm. samay 3 minutes bi mu jeexee audience bi ñoo doon ñaan ne nañ nañoo may ma continuer. parce que ba pare 3 minutes tuuti. tuuti waaw parce que seen intérêt intérêt bi rek dëgg rek laa leen doon wax. waaw c'est vrai. minutes bi mu jotee audience bi ci salle bi ñëpp. nañ ñoo ne nañ may yokkal man ma wax. xam nga loolu wax jooju am na njëriñ. waaw <laughs> ah, gis nañ seen bopp gis nañ seen bopp ah, la. te bu fekkoon sama njariñ laa doon wax nangam nangam. bu na ñu la njëkk a wax ñëpp ñoo doon xam ni. waaw ah. xam nañ la nga wax sa akulaay taala nit ñi toog defe ne day nax nit ñi. Oh, fekk boppam lay nax <laughs> loolu day am day dal souvent suñu politiciens yi. su koy def discours boo xam ni mi ngi defee mi ngi nax nit ñi mais nit ñi comprendre nañ. comprendre nañ mais dañ koy mm, <laughs> kon ñu ngi lay remercier. professeur jërëjëf jërëjëf Pape kontaan nañu bu baax vidéo bi di ñëw. incha allah yow sax merci jërëjëf jërë ngeen jëf.